الرحيم باب صوم الدهر حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني يقول والله لأصومن, لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي qaala fa innaka laa tastatiu dalika fa sum wa aftir wa qum wa nam wa sum fa sum wa aftir wa qum wa nam wa sum min alchahri talaatata ayaamin wa inna alxasanata bi ashri amthaliha wa dalika mithlu siyaami dahri qultu inni utiqu afdala min dalika qaala fa sum yowman wa aftir yowmayni qultu inni utiqu afdala min dalika qaala fa sum yowman wa aftir yowman fa dalika sawmu dalika siyaamu daawuda alayhi salaam wa huwa afdalu siyaam fa qultu inni utiqu afdala min dalika fa qaala nabiyu sal allahu alayhi wa sallama laa afdala min dalik bunti koor ak jamono lépp solo nañ jëlee ci abu salama ibn abdurahman mu ne abdullah ibn amru dafa wax ne nettali nañ yonent bi sallallahu alayhi wa ne moom moo wax ne wallaay gëñ na ne dana oor bëccëg yépp te dana taxawal guddi yépp ci ay naafila feek mu ngi dund ba ko yonent bi laajee ne ko loolu lañ ma wax mu ne ko maa ko wax te maa ngi gëñ ci suma baay ak suma yaay yonent bi ne ko loolu doo ko mën nanga nga oor te dog na taxawal guddi itam tey nelaw te weer wu nekk oor ci ñetti fan fan bu nekk fukk la la ko yàlla di jàppeel ndax yàlla benn bu baax bu nekk fukk yu baax la koy jàppee te loolu buñ la ko jàppalee ñetti fan yu jàppal la ko fanweeri fan mu daal di nekk weer kon su at mi jeexee dafay mel ni or nga jamono lépp mu ne ko loolu mooy or jamono lépp mu ne man attan naa lu ëpp lu gën loolu yonent bi ne ko kon nag oral bis nga dog ñaari bis mu ne lu gën loolu bi ne kon nag oral nga dog bis loolu mooy koor ak yonent yàlla daawuda alayhi salaam te moo gën ci koor yépp mu ne mu waxaat yonent bi ne ko man àttan naa lu gën loolu yonent bi ne ko sallallahu alayhi lu gën loolu amut ci koor baabu xaqil ahli fi sawmi rawaahu abu juhayfata an annabiyi sal allahu alayhi wa sallama xaddasanaa amru bnu aliyin axbaranaa abu aasimin an ibni jurayin samictu cataan an abal abbaas shaacir axbarahu annahu samica abdallahi bna camrin radiallahu anhuma balaga annabiya sal allahu alayhi wa sallama anni asunu sawma wa usalli leyla fa imma arsala ilayya wa imma laqituhu fa qaal alam uxbar annaka tasuumu wa la tuftiru wa tusalli fa sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li aynika alayka xadan wa inna li nafsika wa ahlika alayka xadan qaala inni la aqwa li dalika qaala fa sum siyaama daawuda alayhi salaam qaala wa kayfa qaala kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman wa laa yafirru idaa laaqaa qaala man lii bi haadihi yaa nabiy allah قال عطاء لا أدري كيف ذكر الصيام الأبدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين mu ne bunti xaqi njaboot ci koor Abu Juhayfa ma ko solo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo nañ ba tey jëlee ci Ibnu Jurayj mu ne dégg na Ataa mu ne Abul Abbas wala Abul Abbas Shaa'ir nettali na ko na ko dégg na Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma muy wax ne yonent bi dañ koo nettali ne ko man damay jokkale koor te damay julli guddi lépp mu ne benn nga xam ne yonent bi yónnee na oolu ko walla moom dox na ba tas ak bi solokat bi mooy wax ne mu ne benn yonent bi oolu na ko mu ñëw mu wax ak moom wala yonent bi dox na ba tas moom wax ak moom ñaar leeruñ ko moo tax muy ñaar yëpp moom tas ak bi yonent bi ne ko dafa mel ni wax nañ mën a yow dangay ngay or te doo dog di julli te doo nelaw nanga nga ko na oor di dog di taxawal guddi di nelaw sa ñaari bari dañoo am ci yow xaq sa bakkan bi dafa am ci yow xaq sa njaboot dañoo am ci yow xaq mu ne man am naa doole ju ëpp loolu moom Abdullah ibn Amr mooy wax ba tey yonent bi ne ko kooral kon ooral koor ak yàlla Daawud alayhi salaam or bis dog bis te mastabdaw itam suñu des ak noon yi mu ne fu may jëlee loolu yow yonent yàlla wax na daal ba tudd koor ak dappet pour dappetoo koor nga xam ne doo dog xeeb na daal yonent yàlla daaw da doon def yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ne ko amut koor ku oor koor ak dappet amut koor ku oor koor ak dappet sallallahu alayhi wa sallam baabu sawmi yowmin wa iftaari yowmin xaddasanaa muhammad ibnu bashaarin xaddasanaa gundarun xaddasanaa shucbatu an mugiirata xaddasanaa shucbatu an mugiirata qaala samictu mujaahidan an cabdillaahi bni camrin radiyallaahu canhumaa an annabiyi sallallaahu alayhi wa sallama qaala sum min ashahri talaatata ayaamin qaala utiiqu akthara min daalika famaa zaala فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما فقال اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال في ثلاث bunti or bis dog bis ci koor ak coobarewu jëlee nañ ci Abdullah ibn amru radiallahu anhuma moom la ñuy waxee ba léegi mbiram mu jëlee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne ko ooral ci weer wu nekk ñetti fan mu ne man attan naa lu ëpp loolu mu ne dañut yonantu bi di ko wax muy wax naan mën naa lu ëpp loolu ba yonantu bi ne ko ooral bis dog bis dagat jàng alquran ci weer wu nekk mu ne man attan naa lu ëpp yépp mu ne dañut di wax ak yonent bi ba yonent bi na ko kon nag lu mu néew néew na nga jàng alquran kon ci ñetti fan waaw sallallahu alayhi wa sallam baabu sawmi daawud alayhi salaam xaddatanaa aadamu xaddatanaa shocbatu xaddatanaa xabibu bnu abi thaabitin qaala samictu abal abbaasi almakkiya wa kaana shaa'iran wa kaana laa yubtahamu fi xadiitihi qaala samictu abdallahi bna amr bni al-aas radiyallahu anhuma qaala qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama innaka tasuumu dahra wa taquumu leyla fa qultu naam qaala innaka idaa facalta dalika hajamat lahu al-aynu wa nafixat lahu an-nafsu laa saama man saama ad-dahra sawmu talaatati ayyaamin sawmu ad-dahri kullihi qultu fa innii utiiqu akthara min dalika qaala masum sawma daawuda alayhi salaam kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman wa laa yafirru ila laaqaa bunt yi or koor ak daawuda alayhi salaam mu ne dégg nañ abul abbas al makki te mu ne woykat la woon te masuñ koo tuumal ci xadiisam mu ne dégg naa ci abdullah ibn amr ibn al asi radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax na ko yow da ngay or jamono lépp di taxawal guddi lépp mu ne mu ne ko waaw mu ne yonent bi ne ko bul def loolu boo defee loolu dafay sonal sa bët yi di néewloo doole itam sa bakkan bi képp ku oor koor ak dappetoo jamono lépp nga ne da nga koy oor yonent bi dana amoo amoo koor am na loolu yonent bi wax na ko ñaari yoon ba tey mu taxaw rek naan ko man mën naa lu ëpp loolu yonent bi nag kon nag ooral koor ak yonent yàlla daawuda alayhi salaam daf daan oor bis dog bis te mës ta daw suñu taseeg noonu maanaam parce que néewlu ko woon doole ba ñu tasee noonu yi muy daw defal loolu mu bañ waaye dégg ngeen li koy noonu di wax ci àddi ci ko jiitu amul benn koor bu gën koor yonentu yàlla daawud ak alayhi salaam sallallahu alayhi wa sallam حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابته قال أخبرني أبو المليح qaala daxaltu maa abika ala abdillahi bni amrin fa xaddatanaa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama dukira lahu sawmi fa daxala alayya fa alqaytu lahu wisaadatan min adamin xashuuhaa liifun fa jalasa ala al-ardi wa saarat alwisaalatu bayni wa baynahu fa qaala amaa yakfiika min kulli shahrin talaatatu ayaamin qaala qultu yaa rasulallah qaala xamsan qultu yaa rasulallah qaala sab'an qultu ya rasula allah qaala tis'an qultu ya rasula allah qaala ihdaa asharata summa qaala annabiyu sal allahu alayhi wa sallama laa sawma fawqa sawmi daawuda alayhi salaam chatra dahri sum yowman wa aftir yowman solo nañ jëlee ci Xaalid ibn Abdullah mu jëlee ci xarit min xadda ci abi kilaaba mu ne abul malih wax na ne dugg naa ànd ak sa baay ci abdullahi ibnu amr ibnu as mu ne abdullahi nettali ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dañ koo tudd suma koor maanaam ne ko damay or jamono lépp di taxawal guddi lépp mu ne mu dugg ci man ma sànnil ko njegenaay ci suñ diggante maa moom njegenaay loo xam ne dañ koo sol ba mu fees ak oto yi li nga xam ne dafay nooyal njegenaay bu ñu ko ci defee mu ne yonent bi toog ci suuf yéega naa li dox seen diggante ñoom ñaar yonent bi ne ko ndax doyut la ci weer wu nekk nga or fan mu ne ma ne ko yow yonent yàlla maanaam loolu xeb naa ko ci wax mu ne yonent bi ne ko juróomi fan mu wax ko or yonent ne ko loolu xeb naa ko yonent bi ne ko juróom-ñaar mu waxaat ne loolu xeb na ko yonent bi ne ko juróom-ñeent mu ne ko yow yonent yàlla loolu xeb naa ko yonent bi ne ko fukk ak benn ba tey mu xeb ko yonent bi daal di wax ne képp koo xam ne oor nga koor gu ëpp koor ak yonent yàlla daawuda amuloo koor mu ne mooy lan mooy génn wàllu jamono ne ko oral bis dog bis waaye bul jokkaleeti di or jamono waaye xadis ji mu njëkk a wax rek jàngale na ne nit ak su nekk rek jëlal loo xam ne booy ndaw mën ko booy màggat mën ko ci xadis yu njëkk ja wax na ne ba demee ba néew doole ne na xellante woon man nangu woon yombal gi ma yonantu bi yombalaloon waaye fekk boobu wéy na bi dem na sallallahu alayhi wa